waaw salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum mooy équipe nationale la sol yeewu ak mbégte Sénégal gagné 2-1 ñu qualifié ak mbégte gis nga qualification bi nag lu ci ànd moo bari émotion bi bari na mu amoon ñoo xam ne plus de 20 ans def na 20 ans 2002 la woon ñoom El Hadj Diouf dem si yàlla ñu ko doon rendre hommage démb mu nekk affaire bi nga xam dafa daw yaram ñëpp jooy nañ Sénégal affaire bi nekk qualification bi nga xam dafa bari ay kii jël falal son bokkande nga xam ne ñun moo jiitu suñ judd dañ daan tooñ naan teg dënn xaw ma lan mbay la la woon reprise xaw ma lan dóor mu dugg xaw ma lan ak lan ndeysaan waa Bruno Metsu moo ñu yóbbu woon final yóbbu ñu quart final coupe du monde mu génn àdduna ñoom ñëpp ñi leen ñaanal yàlla fu ñu nekk gënal leen fii boo yi ñëw plus de vingt ans après ñu naan est ce am ne ku mel ni Fadiga est ce am ne ku mel ni El Hadj yàlla indil ñu Sadio Mané ak Ismaïla Sarr Iliman ak ñeneen ak ñu naan est ce am défenseur wala dara yàlla indi ñu Koulibaly révélation plus de vingt ans qualifié deuxième tour mu nekk benn affaire bu doy waar dañuy dow ñu ngi rond point cité kër góor gi maa ngi ci jili ah jili jili ñëpp xam nañ ko ah jili Samson maa dugg waxtaan ak ñu fi nekk soog a dugg tey temps bi yëpp laay wër parce que dañu kontaan qualification venez venez topp ma gain on y va ma dugg jili laaj soxna yi fekk naa fi ñaari soxna nag en attendant mooy taxaw ci digg bi laaj kenn ki nag maa ngi fi yaa ngi si jàmm yaa ngi si waaw ah, tuuti rek. naka fii. ça va ça va ñu ci jàmm. liggéey bi ak mondial bi. waaw neex na de ñu ngi ci jàmm ñu ngi koy gérer. Mhm. boo gisee match dem bi. ah match bi neex na stressé woon nañ mais à la fin ñun ñëpp dañoo mujj kontaan donc c'était c'est l'essentiel. Mhm. bàyyi la nga ko nes. d'accord. sama góos nag fi na ay xale yu ay xale yu taaroo fi ne de xaaral ma wax nànk sax wala soxna si di ma dégg wuy ma ci loo ne. maa ngi nii rek. tur bi naka la. Sadia. Mhm. liggéey nekk sa téléphone pourquoi nga nekk sa téléphone yow wala si yaa ngi ci match bi ba léegi. zone yi laa doon xool démb ñu doon supporté. soo gisee match bi na trop. oui mais bien vrai bi dama tiitoon trop sax mais alhamdulilah comme gagné nañ rek c' est bien. bi ñu war a dajeeg Angleterre. non Angleterre dañ leen di gagné ragaluñ lool non dañ leen score bi match bi di ñëw lan nga. Angleterre bon dañ leen di def comme ni ñu def Équateur rek dugg ci biir waxtaan ak ñeneen ñi. gis nga fi mooy Cheikh Jili arama dugg waxtaan ak ñëpp amoon naa fi benn élève nag xam naa dafa daw <laughs> mooy nii ma jaaxaar maanaam Amar si loo neew sant borom bi bu wér a wér a wér nga ma <laughs> tey fii laa démarré en ah, Cheikh Jili fii la gars yi jaay télé yi gars yi di seeraane coupe du monde yëpp nag waaw télé yi ak coupe du Euh, ça va alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax leen daal xam naa ko moom waa Cité Kër Góor geeg ñëpp fii lañ koy jënde ñenn ñi fii lañ koy seetaanee waaw. Sénégal bi dem seetaan seetaan naa ko ak panik tiitoon naa trop. saa nga commencé tiit yow. Euh, début ba fin kay moom. waaw waaw. hymne national bi mu commencé rek sama xol bi nii la doon def. 90 minutes ci pression nga nekk. yëpp ci pression laa nekkoon des fois ma daw ñëw toog fii te du xam sax lan laay def. mais neexoon na sant yàlla bu baax alhamdulilah. wax booy démb ñu gagné ak lu fi jotoon jaar plus de vingt ans ñu qualifié waat. ii macha fii moom gis naa fi ñu jooy te dara xewagul moom xam naa ñooñ moom bu demee moom final moom moom xam naa dina métti trop <laughs> mais nañ gën a góorgóorlu gis naa ne daal démb moom dañ def Équateur moom buñ ko defee Angleterre moom ñu ñëw mën Angleterre Angleterre favori la ci ci coupe du monde. favori la nañ gëm suñu bopp ba Sénégal moom dafa gëm boppam mais niñ def de moom bu ñu ko defee Angleterre moom nañ dem de waaw. yow match boo doon def score dimanche. 2-1. Euh, waaw 2-1 pour Sénégal waaw pour Sénégal 2 donc ñu gis ni moom nekkoon na affaire yu bari Pape Bouba Diop génn ci àdduna mbiru noo métti Bokandé. affaire yi nan ko gisee dem mu nekkoon victoire bu nga xam ne dafa xaw a triste. Ah, dafa xawoon triste y avait beaucoup d'émotion te gis nga li yàlla di def ñu gagné mu tombé jour bi Pape Bouba Diop gaañu woon paix à son âme c'était c'était triste daal moom mais sant yàlla rek waaw. loolu lañ koy continuer ah, sant yàlla comme ni nga ko waxee rek ma dugg xool jëli waxtaan ak moom tuuti après ñu soog a génn wër town bi yëpp tey damaa kontaan mooy Sénégal town bi yëpp laay wër nag ba heure bu ma neex après ma mbay léegi-léegi ñu bett ko ci biro waxtaan ak moom waxu football ah comme ni ñu ko waxee ak ñëpp waxtaan waxu place bi mooy si dëkk ak góor bi jii moom Sénégal yëpp xam nañ ko dañ koy gën a xam rek ak télé Sénégal ku seedaanul télé fii nii Samsung fii ji jëli ni ñu dem toog salaamaaleykum mais PDG <laughs> mais ziar loolu si loo ne sama mbokk la sama mbokk taalibe la ma fekk ko fi bett naa la de télé Sénégal ñëw seet si la ak période coupe du monde bi. jil ziar naa. ziar baax baax. mooy PDG ah. da koy xaw a bañ nag mais dama ko bett. ñëw bëgg a waxtaan ak moom ci affaire football waxtaan ak moom affaire place bi donc fi mooy rond point Cité ñëpp xam nañ ko muy def lu nga xam ne xam nga fii bu fi rek moom man seetaanoo dara mais grand. ñu ngi ziar ziar bi. ak liggéey bi. waaw mais ça ñaan yàlla dam ñu yokk affaire bi gën a yokku ma gis gars yi ku soxla télé rek fi lay yëngu pour préparer mondial bi affaire yi amoon embouteillage mais gën a am la xam nga Samsung moom moom téléglaire yi moom fii lay fii lay fii la fekk baax soo bëggee seetaan moom di gis marché bi normal foog nga ñëw jënd si télé yi télé Samsung yi comme ça nga mën a seetaan marché yi comme ça ndam yi dana yokk quoi incha allah liggéey bi ak mondial bi waaw temps nag moom booy xool c'est partout affaire yi a te xam su match amee moom gars yi duñ tal dara ñu ngi ci kër yi xam nga supporter gars yi moom kay na gën jëm kanam rek victoire yi yokk affaire yi gën a yokk incha allah. gisee match dem. ça c'est très bien passé waaw waaw fin bi moom affaire yi xawoon na. <laughs> nga am pression quoi. waa waaw mais waaw gars yi démb waaw def nañ jom ak fulla te affaire bi loolu kese la amul leneen. affaire yi moom boo amee position boo nekk ñëpp di la xaar moom da ngay def lépp loo mën rek ngir sa réew xam nga sa dëkk je pense que aussi gars yi matal nañ après Sénégal qualifié waat deuxième tour nga xam ne ñoom entraîneur bi moo nekkoon ci terrain bi ñu génn deuxième tour mu nekkoon lu nga xam ne rêve la woon ñu ñu nekkoon xale vingt ans après gars yi beneen génération ñëwaat génn ñu mu def la. waaw mbégte rek comme ni ko ñëpp yëgee Aliou Cissé man dama ko yërëm souvent sérieusement parce que. ak lu nit man wax xam naa ni ku bëgg réew mi la en plus bu sañoon équipe bi ndam rek lay am pression boobu muy demee tout le temps man ci laa koy xaw a ñeewante quoi je pense que suñ ko doolee doole rek je pense que lépp dina gën a baax incha allah. message équipe nationale. waaw di bëggee rek ak di ñaanal yàlla ndam yi yokk xam nga ñu dolli concentration rek te xam ne affaire yi moom waaw affaire góor la quoi amul amul bàyyi def le maximum rek parce que. équipe boo gis onze la onze onze la quoi te yëpp ay góor yàlla la amul ragal nekk ci rek bi di ñoom dimanche ak ak ak Angleterre tuuti rek et je pense que war na mën a nekk quoi waaw. bi tey yow looy wax. Hmm. non bëgguma wax nag xam nga affaire yow daa xaw a <laughs> mais ñaan daal te gars yi góorgóorlu démb moom sérieusement li ma gis daal na sama xel quoi. et je pense delloo suñ delloowaat comme noonu rek. affaire yi dina gën a baax. dina gën a baax ah sa dernier message lan wax sénégalais yi. gars yi bëgg jëli waa gars yi dañ la bëgg quoi man damay gars yi jëli jëli jëli jëli jëli lan ngay wax. kontaan rek kontaan di ñaanal ñëpp jàmm yàlla def jàmm ci réew mi xam nga ñëpp nekk si jàmm baax a baax xam plus ñu góorgóorlu liggéey réew mi parce que ñun ñëpp ñoo ko bokk su baaxee ñu la baaxal xam nga su yàqu aussi ñu la yàqu réew mi suñu réew la quoi dañu ko kenn yàqal ñoo ko moom. waaye mën a nekk na ci jàpp def li ñu war a def def na moom di jàpp yàlla suñu ko su équipe ñëpp parce que suñu la parce drapeau Sénégal moom lay def su ma génne léegi ñu bëri na laaj looy def fii lox demoo Qatar et tout ça mais maa ngi xaar daal je pense que qualification bi dina jàll comme ça ñu mën a waaj nag dem ànd ak yi mbégte yi quoi incha allah. waaw gis nga moo nekkoon fii tey ñu ñëwoon seet si ji li waxtaan ci mondial bi waxtaan ci. bërëb bi liggéeykaay bi gaa yëpp fi la ñuy ñëw di jënd ay teleen mu nekk nga xam ne jeune la taalibe Serigne Touba la fi nga xam ne dafa nekk fii di bokk ci développement Sénégal comme ni ko gars yi di waxee ah mu nekk xam nañ ko Sénégal kenn dootu ko wax kenn xam nga di ko ñaanal yàlla xam nga affaire bu gën a yokk gën a law liggéey bi gën a avancé gars yi ñoo leen fii téléphone ak télé lépp fii la ko gars yi di jaay fii la ñëpp di jëndee lépp nañ koy wax te dee ah fii la ñëpp di jëndee lépp parce que liggéeyam la ak jàmbaaram ak wàcce oyof mu nekk oyof tamit taalibe Sëriñ Tuubaa xam nga day oyof tamit gëm donc xam nga yàlla na yàlla jàppale affaire bi gën a law sa message ak Télé Sénégal. waaw mais kontaan rek xam nga yow moom yaay sama jëwriñ. <laughs> non mooy sama jëwriñ de. yaa ma sëñ su ma paree loxo yi mu ñaanal yaa ma sëñ ñëw bette ba nii mais on est ensemble c'est la famille quoi. waaw di ñaan yàlla liggéey bi yàlla teg ci loxo mu gën a yaatu dema dema dem ba mu nekk affaire yi télé yu mag a mag a ci réew mi je pense que su ngeen liggéey rek gëm ko suñu mën ci def loolu laay di ñaanal suñu damay dem gaayam xam nga duggaat ci dëkk bi mooy Sénégal ñoo qualifié waxtaan a gaay waaw lu ñu gisee ci match bi bii di ñëw ak match bu ñu jógee dem pression bi bari woon mais yàlla def na ci xewal sama gaay kaa leen dem kon Djily kontaan naa gaay salaamaaleykum ah ba léegi jóge naa Cité Keur gi maa ngi ni direct fii bi biir université laa nekk nag fii mooy Sénégal <laughs> université laa ñëw xool étudiants yi gars yi nga xam dañoo bëgg football nag sama zaar yi ñoo fi nekk werante guddi werante bëccëg gis nga fan zone bu leen fi defal moo gën a ngande ci dëkk bi ngandi fan zone leen defal fii ma ñëw tey xam nga mu tombeek lan match bi jeex lendemain bi match France bi xam naa nañuy seetaan ni damay xuus xool xoos gaa yi ni ñuy seetaanee match fii nii waxtaan ci match bi qualification bi ak vingt ans après mbay nañu dem moo xool gars yi gars yi ci biir université Cheikh Anta Diop maa ngi fii ah gars yi match mi ñu waaye commencé maa ngi fekk fi benn grand gars muy taxaw ak sama waay salaamaaleykum. ça va grand bi naka mu. mais grand ziar naa la. eh Tiis. Mister Matar bi. Tiis <laughs> a ngi nii ah moom télé télé Sénégal la boo xam dama ko fekk biir université moom nag fii na nekk Tiis. Tiis lay def yow. mais Matar yow yaa am sëriñ. wala ñi ngay interview ñoo am sëriñ. parce ah, ah, mais bizarrement à chaque match Matar dafay joxe score te score bi dafay exact. ñu ngi ñooy joxe score bi mu tombé nu mu demee noonu. est ce que doo sëriñ sax di ko nëbb gars yi di leen ko dee seen xel. affaire yu bizarre non daa am ñaari affaire yu bizarre yu tombé. Euh, Sénégal ak télé Sénégal affaire bi tombé. mais lu doy waar après gars yi def version rouge. mais li Sénégal rek ko. mais jox ma score match bi ñëw yow loolu sama jinne ñu xool euh, bii di ñëw euh, gis naa 4 gis naa 4. mais Angleterre ma gars euh, Angleterre la kon baa ma wàññi tuuti baa ma def 1 <laughs> mooy borom 5000 ku woo léebal mu jox la 5000 Corée daan loo mu jox la 5000 Diz grand ziar la. oui delloo ziar grand bi Mata. grand maa lay ziar. bu wér a wér. mu fii mooy Sénégal université fekk la fi nga nekk ci affaire organisation bi. waaw affaire nan la fan zone. waaw fan zone bi fii mu ngi neex. fii c'est le Sénégal en miniature. boobu léegi boo étudiants yi ñu ngi ñëw gars yi ñu ngi jóge si biti di seetaan ñu ngi am ambiance ñu ngi kontaan ci suñu équipe nationale. parce que ñun ñoo ñun ñoo animation bi fii avec Dax mu ngi neex étudiants yi ñu ngi kontaan ñu ngi remercier directeur Coupe Maguette seen affaire bi vraiment mu ngi mu ngi neex ko étudiants yi ñu ngi kontaan maanaam ñu ngi dund coupe du monde bi waaw ñu ngi ko dund normalement. ma gis gars yi day fees gars yi toog ci kaw kii problème boobu. fii moom boo yéexee doo place parce que day am ay jeux concours day neex man maa koy def. ku yéex doo am place. maa gis ngeen di julli imam bi sëlmalagul sax sax gars siif si jaar man affaire boobu daf maa yéem trop. gars dañuy dund football fii 100 pour cent. fii moom booy dañuy dund football normalement étude sport la ñuy def étude sport. Sénégal qualifié démb mu nekk affaire bu nga xam dafa xaw a triste 20 ans après ñu doon football coach bi am ci coach bu nga xam moo yoroon équipe bi décédé Pape Bouba Diop décédé dem si boo si Bokande nga xam lu ne def nañ ko football Sénégal décédé affaire bi ñëw booy ñëwaat vingt ans après ñu amaat beneen beneen génération gars yi ñëwaat qualifié. waaw loolu nekk na lu may rafetlu parce que joueurs yi boo xoolee démb ni ñu fubalee nga xam ne maanaam dafa am lu ñu leen dee dafa am nu ñu doon demee parce que Pape Bouba Diop nekk na ko nekkoon na koo xamante ne fii Sénégal. defal na équipe nationale bi loo xamante ne vraiment ñëpp teg nañ ci seen bët mu nekk lu rafet wax dëgg yàlla lu demb li moom dafa rafet man xamoon naa ne mënuñu koo ñàkk parce que Pape Bouba Diop li mu doon joxe ci Sénégal man xamoon naa ne bésu démb démb bi mënuñu koo ñàkk quoi sincèrement parler wax dëgg yàlla. bu foofu dem ak Angleterre mu nekk favori boo wax ci favori yi wax. Angleterre dañ koy patal dañ koy patal maa leen ko wax dañ koy patal. 1 patal nawetaan lañ ko nawetaan maa bi la ñu indi <laughs> nawetaan la ñu indi nawetaan affaire bi nawetaan la patal rek mu jeex loolu laa gis man. waaw avec Télé Sénégal. waaw avec Télé Sénégal tout est possible gars yi dee ko suivre mu ngi ci internet bi n'est-ce pas na ko gars yi di suivre en direct Télé Sénégal wax dëgg yàlla seen liggéey rafet na quoi ca kaw ca kanam. xaaral ma dugg ak étudiants yi xool gars yi. waaw yow la rek xuus waxtaan ak ñoom. jeex na xam nga xuus waxtaan ak gars yi ku ma fekk muy seetaan match ñu bokkul ci match sax damay waxtaan ak ñoom xaaral damay dugg fi xuus xool gars yi nu ñuy seetaanee match affaire yooyu quoi. damay dugg ah venez venez venez venez topp ma topp ma topp ma topp ma topp ma salaamaaleykum. grand na nga def. grand ziar na. delloo ziar. seetaan match moo la génne wala. waaw seetaan match moo ma génne waaw. yooyu match yi muy fees ba yàqul seen jàng. non non yàqu suñu franchement quoi non yàqu si dara. fekk wàcc. day fekk ñu wàcc voilà exactement après dinañ am temps bu bëri pour réviser tamit yàqaluñu dara si jàng bi. nan nga qualification bi mu nekkoon match bu métti. waaw kontaan nañ trop franchement parce que gaynde yi jox nañ lépp lu am xam nga wane nañ ay gaynde yi ay vrai sénégalais kontaan nañ trop hier quoi franchement vraiment kontaan. message leen di jox pour ñu préparer carré final. waaw gën a mànkoo rek doon benn rek xam booloo rek booloo mooy lépp quoi mànkoo wuti ndam ñu def ko ñu defoon si kan bi rek incha allah am naa yaakaar ne day ñëw. incha allah day confiance quoi naa confiance. merci beaucoup gars yi damay xuusaat xoosaat kiiwaat gars dem oh. grand na ngeen def taxaw leen yéen ñaar taxaw leew. salaamaaleykum. sant yàlla bu baax. yaa ngi si jàmm. combat ba wolof. ah bon. koy supporté Sénégal. Burkina Sénégal oui je suis. Burkina ñëwul Sénégal ngay supporté wala. je supporte le Sénégal. ah bon noo gisee match bi C'était cool, on était trop contents. Ah oui, on croit Sénégal va battre l'Angleterre. Waaw delloo ziar. Grand ñu ngi ñëw fii da ngay jàngi wala da ñëw ci terrain bi. damay jàngi nag damay jàngi nii. Waaw. Ah. Match bi yàqul seen euh, parce que nous démb bi match Sénégal bi amee dañu waxoon cours du am soir quoi. léegi nag ñoo ñëwoon fii may ñu pour ñu seetaan match bi mais yàqu ci dara quoi. très boo gisee qualification bi. Euh, vraiment on était tellement content quoi. équipe bi daal franchement ñu ngi leen di ñaanal daal yàlla may leen gën leen may ay ndam yu bari quoi incha allah. final quoi. waaw waaw incha allah. su met lañu am dimanche. Oui, mais ils vont faire l'affaire, Inch'Allah. Je pense que vraiment, avec notre équipe-là, on peut remporter la compétition, quoi. Inch'Allah. je dirais 2-1 comme hier. 2-1 oui. 2-1 la joxe ah damay xuusaat ah, gën a dugg ci gars yi gën a waxtaan ak gars yi. gaañ dem derrière. kaay kaay kaay ma dugg ci gars yi waxtaan a gars yi. saak saak gars yi instant dañu xaw a concentré wu ci match bi moo tax doo mën a waxtaan ak salaamaaleykum. grand ziar naa la. non xam nga rek xëy def nii xaw a euh, oyofal mbir yi daal gannaaw victoire bi. waaw gisee victoire bi dem. Ah, xanaa am mbégte ak contentement rek ci li nga xamante ne moom la joueur yi joué vraiment ak euh, coaching gagnant bi nga xamante ne Aliou Cissé teg na ko ak euh, tactique bi nga xamante ne aussi joueur yi wane nañ ko boo gisee premier match ñu ñaax ko deuxième match ñu rayante ko ba troisième match bi loolu aussi day wane ni que ni tey ji équipe bu Sénégal nga xamante ni moom la nekk champion euh, d'Afrique loolu aussi moom ko a ñaax équipe yi nga xamante ne ñoo nekk Afrique parce que gis na ni sélection euh, nga xamante ni Sénégal def euh, africaine bi nga xamante moom moo dem en huitième de finale après vingt ans yoo xamante ni demuñu fa loolu aussi nekk na loo day honorer mémoire ki xam ne moo di Pape Bouba Diop mais aussi day gën fortifier yeneen équipe yi nga xamante ñoom ñoo nekk ci Afrique yëpp donc lu ñuy lu ñuy rafetlu la ñun en tant que Sénégalais en tant que doon journaliste aussi ñu ngi ko rafetlu bu baax a di ci am mbégte ak contentement vraiment. kontaan naa ci yow jërëjëf. gis nga Edy damay xuus gars yi gën a avancé gars yi gën a naa la. mbaa yaa si jàmm. naa si. da ngay jàng wala ngay saran si. technicien. da ngay ñëw ah. maay technicien écran bi. ah technicien écran bi la yow yaa monté écran bi. <laughs> mais gars yi Edy Dieng yi gars waaye du ñu yàq affaire dañoo xaw a métti de am naa ci ay copains ñoom maïs affaire yooyu ay Edy Dieng nañ de mais ñu koy gérer de. Ah, a fii waa ñu gisee qualification bi de. waaw neexoon na trop moom franchement booy joxe nañ joxe war a joxe yëpp di ñaan yàlla incha allah rabi contre Angleterre yàlla def jàmm ñu gagné ak jàmm ak salaam rek bi coach bi maanaam bu lu bëri rek comme que Gana bii ñëw du ñëw na kii ñëw rek euh, mun na kii nii buñ si digg bi comme a jouer comme 10 avancé mu andi pas de 6 ak kii nii ak Pape Gueye comme loolu rek maanaam Krépin waaw waaw Krépin jiitu rek di passe booy yi. jàpp nga ne bu tegee lu mu tegoon affaire day. non incha allah rabi ndam day am. jaajëf technicien ginnaaw da ngaa ñëw pour seetaan si mas salaamaaleykum salaamaaleykum da ngay seetaan si mas war nga ñëw rek toog <laughs> kay mooy Sénégal mooy Sénégal léegi nii salaamaaleykum yow yow la war a gars yi tegal fii gars yi ay seize yow yaa ngi doon lay laaj Sénégal waaw bi dem noo ko gis waaw ah, match bi neex na de on bien joué et on a ñu war a dajeeg Angleterre dimanche loo gis ci match bi yow. ah Angleterre ëppale dara de. 50 50 la rek ñoom 11 la ñu teg ñu ñu teg 11. te suñu joueurs yi ñu ci bare boo xoolee euh, championnat Angleterre la ñu nekk ñeen nañu France am nañ daal joueurs yi nga xam ne mën nañ gagné Angleterre buñ ko gëmee teg la ñu war a teg incha allah yàlla mën nañu may ndam. may ndam ah. lay wax coach bi. coach bi ah instant bi moom mi ngi ci daa mel na ne gis na yoon bi de instant bi amul luñ koy wax waaw moo ngi baax. merci beaucoup gis na affaire bi ah nee na course bi gis na affaire bi donc xam nga damay xuusaa rek dugg ci biir gars yi rek xool gars yi ñuy saraanee match bi xool gars yi grand yow na nga def match moo la fi indi yow wala gars yi nee na déggu olof tu comprends pas noo gisee match bi démb hier. je comprends pas wala. déggu olof yow. non nan ngay nan ngay communiquer ak gars yi fii nii. salaamaaleykum. grand na nga def. grand yow daa mel ni ama amateur football nga yow. siyaar naa waaw ça va maa ngi lay ziar bu baax. maa si jàmm. maa si jàmm bu noo gisee match bi dem. non match bi moom dem bu neex na trop vraiment neex na trop waaye football bu baax a baax sax surtout au niveau de la milieu terrain Patétis Patétis vraiment changement bu baax la baax la ay di dem boole si Patétis bien assuré vraiment il bien assuré. lan ko sonaloon. waaw course bi moom dama koy dama koy féliciter rek temb vraiment lu mu def baax na trop indi na Elimane Ndiaye moom lañ xaarut et c'est kontaan si yow nañ ñam avancé ma jël xale yi nii di ñëw xale yii di ñëw laay jël bul na budd yow laay jël <laughs> bul na budd damay laaj si match équipe nationale kay rek Sénégal laa lay laaj ah looy jëmoo saf-saf ni étudiant yi xam tax ngeen métti quoi taxawal jëlama kii wuy ma Sénégal lay laaj tourné li nga wax ak boo reetaanee ba pare s'il te plaît wax ak man loo xam ci match Sénégal. oh là là ma ko. seetaanu match bi. neexoon na daal en tout cas c'est incroyable c'est incroyable neexoon na franchement kontaan nañu et tout voilà. merci beaucoup ah, maa ngi nii biir université gis benn gars sax sama mooy équipe nga Kaayo mooy Real nga sol. e xaw ma tax ngeen bëgg saf-saf lu ko ayoo noo gisee match bi dem. match ba Sénégal bi dem. waaw ah, match bi moom ça a été. laaj match Sénégal laaj ma la match Cameroun match démb kay boo ko déggee match Sénégal laa lay laaj. waaw ah, effectivement noonu la match bi moom démb kontaan nañ quoi parce que gars yi wala Lions yi joué nañ euh, et puis gagné nañ quoi génne nañ ci poule bi instant yi ñu ngi ci deuxième tour yi xanaa di gën a góorgóorlu rek. gën a lu dem huitième de finale quart de finale demi ba finale pourquoi pas dem indi coupe bi parce que nañ ko quoi. waaw waaw waaw incha allah yaana kon grand gars yow. Eh, kaay ngay reetaan nii. Eh, <laughs> grand na nga def. na def mais étudiants yi xaw ma ñu tar quoi étudiants yi xaw a na quoi kaay. dinaa wax ak gars yi ñëpp. ba pare wax ak gars yëpp ñu wax ma Sénégal match bi nu mu mujjee ak match bi nu mu nu mu demee. nga wala cag la. waaw salaamaaleykum naa bi tàng na dafa marché jusqu'à ici salaamaaleykum salaamaaleykum na ngeen def def gannaaw nooy def waaw macha si jàmm xool étudiant yi nu ñu mettee nag si lu bees si jàmm bu baax fii ak ak kii nii nu mu ko gisee <laughs>

waaw maa ngi lay ziar ça va. ñii la moo tax ah yow doo amateur football. Ah, bien sûr amateur football laa kay. match démb bi noo ko gisee gars yi gagné qualifié ngeen zibilé yëngal fii gars yi jaxas fii nu mu demee noonu. waaw match démb bi kanaa kontaan ma ak ak rek vraiment Sénégal li ñu wane démb moom vraiment la quoi yal na yàlla jàppale ñu dem si kanam quoi jusqu'au bout quoi ñu leen ñaan yàlla quoi. waaw joueurs yi nañ gën a ruguroo rek. waaw nañ gën a ruguroo quoi baax na mais nañ ko yokkaat quoi waaye la ñu xaar si joueurs yi quoi. dinaa la booleeg Tizia mu dugal la ci 5000 bi yow. bu baax a baax kaay fii ma terminé fii xool gars yi fii lu ñuy jaay non damay tooñ rek Tiz Tiz moo def 5000 bi di reetaan loo gars yi fii si fête bi salaamaaleykum. salaamaaleykum bu daw geen bu daw geen salaamaaleykum. soxna si na nga def. na nga def. bien. gannaaw gannaaw ni ñu di seetaan mas bi ngay na nga def noo gisee match dem waaw popcorn bi neex na de. dëgg naxam non match bi neexoon na trop ah. waaw kontaan nañ lool sax. Hmm. waaw waaw lool loolu lu rëy la quoi c'est historique xam ñëw nañ def nañ ko li gars yi doon xaar yëpp si Aliou Cissé démb def na ko démb même toogoon sax. kenn du ko wax dara xaw moom Sénégalais la. ñëwee wax. ak moom. mooy démb dafa déglu opinion publique xam nga dañ doon wax gars yi chaque jour ñuy kaas waaw Aliou lu tax indiwul lii. démb ñu ñëw xam nga mu ñëw déglu opinion publique moo tax déglu opinion publique dafa baax mu ñëw génneel ñu suñ classement bi nga xamante ni peut-être moom la amateurs yi bëggoon. du coup loolu noonu fay na tey jii nii moo tax démb il a démb jooy na. dem qualifié vingt ans après ñu dem deuxième tour wala day Angleterre équipe bu mag. non mais dara xam nga football la tey boo seetaanee début début début euh, compétition bi nga gis yenn équipe yi nga xamante ni peut-être Argentine kenn xaarul woon ne Arabie Saoudite dina ko éliminer. parce fii moom sawaay c'est le niveau amul équipe bii moom mën kii képp engagement mooy gagné te démb Lions yi lan lañ def détermination engagement fulla fit ak jom dañu wane après génn ji. c'est ça quoi. kontaan naa ci yow de nga toog fii tim sa kii gars di relax eh jaamé woo man damay jël soxna si nga nekk fii ak match bi fan zone bi di jaay li muy jaay muy jaay. moo ngi jaar kay. gisee match bi dem. match bi dem neexoon na trop. kontaanoon nañ képp kuy sénégalais rek kontaanoon nga dem. vingt ans après ñu qualifié dem deuxième tour war a dee ak Angleterre lan ngay wax gars yi. waaw loolu du lu ndaw de ñu gën a yokk entraînement yi rek te góorgóorlu xam ne Sénégal yëpp a ngi seen ginnaaw. li ngay defar nii saf na de. <laughs> waaw baa ma defaral kële après ma defaral la. waaw ah, xuus ñëw jël sa mbos. maa ngi xuus ñëw. grand grand jëluma la ngay daw de man jëluma la de ngay jéem a daw salaamaaleykum. salaamaaleykum. salaamaaleykum. grand ziar na. delloo may bett de. ñëpp laa bett fii man nga damay taxawaalu rek. Sénégal qualifié. dem deuxième tour vingt ans après. Uh-huh. waaw kontaan rek am si kontaan maa bu rëy. ñu ñaan yàlla uh, mu jig ñu. di ñaan nag dem de finale incha ñu dem am équipe bu mag dimanche Angleterre. waa loolu non pression aw ma si parce que suñu jour yëpp dèjà dañuy fubal Angleterre aw ma si benn lu ñu def Équateur loolu raw mën ko def Angleterre allah. coach bi lan yi nañu oh, ñu sonal ko parce que dafa dëgër boobu foog gars yi sonal ko tuuti pression bi ko teg moo tax match bi passé mu xaw a am changement nii sax waaw ñu waaw ñu ngi espérer mbir ñëw mu am changement bu neexee yàlla waaw. yéen da ngeen seetaan football leneen laa mais <laughs> jigéen ñi bëri nañ tiitar booy wër ñu bëri tiitar Sénégal ba ñëw fi jigéen jigéen ñee ëpp bëri tiitar jigéen ñee bëri tiitar ki nee na ma jaay na ma de damaa jaay nag mayu ma tam jaay naa ma tem jaay naa ma émission bi émission bi da ngay jënd daf daf maa jaay nag xama fay ko te gaay di ko gi <laughs> ñaar lay jar ñaar lay jar 300 lay jar day leer gis nga démb dama fi lekk ataay jàmbur gaay topp ma naa moom ni ngay def di tourné émission di maa jaay non maa jaay xam nga jox sama gars yi ñu tawal ànd naa sama gars yi ñu tawal ànd naa daf maa jaay mayoo ma na dag maa jaay de. ba ñëwaatee beneen yoon. waxumu leen rek maa jaay ma dag maa waaw ba léegi ah maa ngi nii biir université man di wër rek sona si xam nga footballé wala xam nga football noo gisee match bi dem. match ban match ban match ban ah neexoon na de moom wane te tuuti ko. yaa jigéen ñi bëri de. jigéen ñi bëri nañ tiitar de jigéen ñi jigéen ñi bëri naa la mbaa yaa ngi si jàmm alhamdulilah vingt ans après mu dem deuxième tour yaa ngi reetaan de xanaa ngaa kontaan oui je vraiment content kontaan naa bu baax a baax waaw de xanaa ñu rek euh, match prochain gën a rek loolu la bah je pense que équipe bi ñuy joué démb mooy équipe nationale équipe bu Sénégal quoi effectif bu normal bi quoi waaye gis nañ bal bi daw na et tout ça. dimanche ñu tegaat même. waaw waaw bien sûr waaw moom ma gënal sax. oui moo ma. confiance dañu war a gagner Angleterre. bien sûr football amatul amatul loi soo demee ba coupe du monde amatul ay amatul équipe bi moo gën a am doole amul bee moo gën a am doole ñun ñëpp a yem effectivement. kontaan oui merci beaucoup. merci beaucoup ah, xaaral ma terminer fii nag fii laay terminer ci ci ci ci kii bi <laughs> jëluma la jëluma la jëluma jëlatuma jigéen da ngeen bëri diiréer ay góor laay jël jëluma benn jigéen da ngeen bëri diiréer jigéen ñi ñoo bëri diiréer jëluma benn jigéen. salaamaaleykum. def ma publicité nag man Sénégal laay laajte ginnaaw. jeex na. delloo si 20 ans après Sénégal qualifié deuxième tour. c'est très normal. Euh, Ndiaye la sant pour pour la pour la nouvelle génération euh, mbégte la parce que chaque génération da ngay am moment yoo xam ne da koy vivre bettuñu ñun ñi nga xam ne 2002 moo nekkoon suñu première génération nee naa la ba coupe du monde bi di ñëw école 6 la ma fekk ñu ñëpp dañoo bàyyi classe Moussa Diatta topp coupe du monde bi euh, kii yoroon ko nu mu tuddati sax. suñu gaynde gi joolaa bi euh, ancien numéro nu attaquant wu Lyon yi nu mu tëddati yooyu ah. 2000 2002. kii yoroon coupe bi nu mu tuddati sax il est décédé gars yi dañ ko fàttee démb. non bi doon nommé ak keneen ki rasamaan bi joolaa bi. Bokande merci beaucoup Bokande yoroon ko ñun ñëpp dañoo daw ba sib si bàyyi suñuy cours kon donc génération bi fekkee la qualification des Lions euh, seen génération la mbégte la euh, contentement lañ am. muy air bu bees ñëpp sol seen ma yo Sénégal nekk si jàmm ñuy ñaana Lions yi rek ñu battre Angleterre mën nañ ko am nañ équipe bi seulement rek na def na défense bi solide ñu gën a gëm suñu bopp dugal dugal dugal bi mais bettu ñu nag mais mbég mbégte la sincère. amoo ci mbégte lu non dañoo bég mais man bettu ma li ma tiitoon rek mooy biiwu biiwu Équateur bi xamoon naa ne day ñëw mais su ñëwee ban lan mooy doon réaction bi deux minutes après gars yi indi réaction bi gars yi mën nañ lu ne. te sans Sadio maane gars yi won nañ ne war nañoo mën a dem mais suñu Sadio nekkoon lay gën a neex nag mais neex na ba pare. dajeeg Angleterre mu bokk ci favori yi. tiituñu ko mais seulement équipe bu ñu respecté la. il faudra être euh, sur ses bottes taxaw défensivement nag première ba quatre-vingt-dix-septième minute taxaw xaar bañ a yàqamte défensif. Euh, ñu fubalee tamit expérience mais loolu tamit joueurs yi nga xam ne ñooy fubalee championnat Angleterre. Gana dinañu xaw a manqué mais Koulibaly mu ngi fa Mendy nag bis boobu mooy mat sam Cheikhou Kouyaté dinañu manqué xaw ma ndax dina ñëwaat mais am nañ yaakaar ne Sénégal mën na def exploit man li may gën a tiit mooy que ne suñuy changement match boobu entraîneur bi Aliou Cissé El Tactico suñu waay la mais nañuy déglu tamit fan yi mu ngi ñuy déglu ñu ngi kontaan ci moom nañuy déglu parce que match boo xam ne Sénégal da ko war a gagné te mën nañ koo gagné parce toujours déçu Angleterre comme Eto'o nu ko waxee mës a jël coupe euh, ba mu finaaloo yàgg na ñun suñuy maam lañ koy déggee kon Angleterre mii ñun vice équipe champion d'Afrique lañ Angle du dara Angleterre moo ñu war a tiit mais ñun waruñu ko mais war nañ ko respecté nag très sincèrement mais ñu ngi ñaan yàlla yàlla may ñu ndam. ñu ndam ah, sa message. tiro sax baax na suñ ko yóbbee tiro bii gagné ko. dañu gagné daal nañ ko gagné rek. ñoo gën a kontaan. merci beaucoup ah maa fekk gel di laax du ma jël jigéen da ngeen bëri di reen. Ah, université Cheikh Anta Diop ci corniche bi gis ngeen gars ah. ñu nekk ci coupe du monde bi bégal gars ñu dund sport dund football waaw Sénégal dañoo bëgg football pays boo xam ne dañoo bëgg football la fii lay tëjee nag ah. maa fii ci corniche bi au revoir ñun demaguñu nag ñu ngi fii Sénégal day dem ba final corniche bi laay tëjee ah génnee université jéggi ñëw fii waxtaan nag étudiants yi nekkoon naa rond point cité kër góor gi maa ngi ñibbi nag xam nga ak waa télé Sénégal matin national tey journée bi xawoon na metti mais dara liggéey bi moo ko laaj ah, di xam ne télé bi télé national la waaw télé Sénégal matin national Sénégal nekk wara a football carré final dimanche maa ngi nuyu sama dooma ah, Tima tukulóor bi <laughs> tóoróodo bi Tima Tima nee na ma tóoróodo laa dem wax toorodo Tima maa lay nuyu sama doom la sama xarit la maa ngi nuyu aji ah depuis Guédiawaye moom it sama doom la moom dégg na ma wax Tima sama doom la muy bañ kon damaa bëri ay doom nag yàlla ko dogal Matar national télé Sénégal ñu ngi leen jox rendez-vous suba ñu ngi dem Mbour nag maa ngi dem Mbour deme de demee Mbour laay dem damay génn Dakaaru Ndiaye eh mbay moo nekkoon ci ginnaaw man maa nekk ci kanam lu mbay di liggéey sax la gaa yi di gis man damay wax rek mais mbay mooy liggéey lépp mbay maa ngi lay bu baax a baax a baax bégg naa la Binta tanel bu baax nga si job bi one love télé Sénégal Matar national yes Beep. Beep. Beep.